plan d'action bu ñu déposé woon dañu nee woon bu nguur gi génnewulee décret bi nga xamante ne mooy décret d'application bu complété loi 71 loi 2011 fonction publique bi dañuy dem mouvement te pare woon nañu pour loolu parce que def nañu tournée li nga waxoon tournée yi nga ñu waxoon Tëngéej def nañ ko def nañu Pikine def nañu Guédiawaye war a def Dakar aussi mais yàlla dafa def bi ñu déclenché bi ñu déposé préavis bi le 21 novembre yàlla dafa def comme préavis bi boo déposé da ngay tok wèr bala ngay dem grève yalla dafa def ministère bi daal di woote ndaje woté bi nak amna lu mu jur moy ñu tenir conseil supérieur de la fonction publique bi nga xam mom ministre moko ko bi mu woté conseil supérieur dañ fa adopter benen feuille de route bu bess xamal ko né ñun amatuñu temps di nekk ci ay ay marche ay sitting ay grève lañu def grève générale donc feuille feuille de route bu bess bi mu ngi ay 14 points la yore yoo xamante ne dañ ko ne tant que yooyu saafara ñu ko ci ay tolo tolo lañu jëm en tout cas collectivité locale jaama dootu fi am ba tax na li nga xamante ne ñun moo ñu soxal wax nañ ko maanaam ñu créer structure boo xamante ne moom mooy gérer fonctionnaire communaux structure boobu bu leen neexee ñu tuddee ko agence bu leen neexee ñu tuddee ko établissement public bu leen neexee ñu tuddee ko direction générale ñooñu d'accord nañ ci principe bi léegi modalité de mise en œuvre moo ci des gis nañ ne aussi loi bi bi nga xamante ne mooy gérer fonctionnaires communaux yi ñu nekk ci administration bi moom tamit dañu war a modifier décret disposition transitoire décret boobu 2011 662 euh, bu ñu ko changé dina permettre ñi nga xam ne jëluñu leen en compte woon ñu jël leen en compte ñu naan aussi poñ bi nga xam ne moo ñu gën a soxal IPRES ak FNR nañu xool naka la ñu jël euh, euh, fonctionnaires communaux yi ñu nekkoon ci régime IPRES nous que le régime FNR muy fonctionnaire qui avons l'État état le national de retraite donc loolu aussi ay études fait pour que nous puissions faire def basculement le mardi 21 nous avons démarré une tournée nationale avec le ministre bi c'est une première à saluer parce que le ministre s'est ministère engagé pendant un mois du 15 janvier au 15 février pour que nous puissions faire def tournée nationale dem ci gox goxaan expliquer travail yi expliquer surtout élus locaux yi expliquer exécutifs locaux yi muy gouverneur muy préfet ba muy sous préfet bi pour ñu xam lan mooy fonction publique bu ñu paree dañu xayma ñu évaluer xool euh, actuellement programme bi nga xam ne moom la ñu annoncé muy li des ci stock problème yi naka lañ koy traité moo tax intersyndical nee pour le moment comme mënagul lolu yenul maanaam sax le dem mouvement d'humeur Mme grève générale bi mais préavis bi six mois lay durer que ñukoy rappelé. rappeler donc actuellement mom mu ngi en cours mais pour le moment action yi moy dem ci terrain bi ak ministre bi pour que nous recueillir les doléances pour que nous recueillir aussi yi nga relatives moy euh, question yi relatif à la mise en œuvre de la fonction publique locale